waaw ñoo ko gisandoo rek en l'instant même force de l'ordre yi ngi di doog a arrivé ñi ngi ñëw fii au niveau de euh, sem an fii ci waalo gi donc boo yi teg nañ fi ay pneu ko ñi ngi nii bon la situation est <laughs> un peu chaotique et chaotique sax laay wax donc en tout cas metti na trop lii yëpp pour euh, intérêt benn nit euh, bu dëgër bopp sax parce que tamit nag nit boo bëggee def benn mbir te ñi ko Euh, barab bi nga ko bëgg def ñooñu ànduñu ci aussi je crois que ni euh, da nga war a reculer quoi mais voilà gis nga on est là tout le monde est bloqué oto yi demuñu dikkuñu au niveau cm entre noonu la demee fële à ci kanam fële ci Ferraille ak yeneen côté yi donc poste de l'ordre yi ñu ngi romb léegi jëm côté centre de santé Hann bi mi ngi noonu daal.